ginaaw bi ñu remercier responsable ak militants yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo ngi teew parce que constat bi benn la toog nañ sànq ba ci yàgg ñu annoncé ñu que ni suñu président le président de notre mouvement à savoir Thierno Alassane Sall dañ ko arrêté arrêté ci loo xamante ni on peut dire que ni c'est injuste parce que suñu constitution ñun Sénégal moo maye que ni képp ku am lu la naxari mën nga dem. nga firndeel ko ci marche suñu président loolu la doon def ak naataangoom yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci opposition bi parce que tamit dina jaadu ñu alerter parce que olof Ndiaye dani ku artuwul di nga atte ñi war a wax ñoo ngi seetaan te actuellement ñoo ngi ci benn Sénégal bu nga xamante ni mu ngi jubal tout droit ci kàmb gi te buñ ci jógul fa ñu jëm duñ ko xam am nañu suñu kanam benn président boo xamante ni nii deuxième mandat bi jaral na ko lu nekk. ba tax na imposé nañu parrainage ñu nangu ko ci ñàkk pexe ñu war a dem ci parenage boo xamante nii nee nañu ku nekkul ci fichier électoral bi mënoo parrainer et il s'est trouvé que ni ci élection yi passé am na ñu yor seeni i carte dem ba ci seen bureau de vote ñu xamal leen ni nekku leen ci fichier bi te loolu doon na loo xamante ni risque la pour opposition bi nga xamante ni war nañu dem jàkkaarloo ak ñoom ndax tey mën nga def la travail qu'il faut récolter say nga dem ba présenter ñu ni la diw ak diw nekkul ci fichier parce que Macky Sall droit ci en tant que candidat noonu la ci bépp candidat ci opposition bi amee droit donc ñoom liñ doon marche di réclamer c'est un droit bu nga dafa légal dañ leen ko jox alerté que ni le président Alassane Sall d'ici quelques heures il y aura des réactions taxaw ci télé bi di wax dinañ wala wala mais ko libéré wul sans condition ni délai dinañu yëngu dinañ yëngal. parce que la population de Thiès taxaw nañu. Sénégal taxaw na xamni ni Thierno Alassane Sall ñun fam ñu jëmee fofu lañ bëgg dem. parce que lolu moy valeur. Sénégal dafa manquer valeur sen président Thierno Alassane Sall mu ngi incarner valeur yi té ñom xam nañ ni sénégalais yi commencé nañ ko xam ci lolu donc forme de lutte bu nek nañ ko utiliser pour barrer ko mais ñun dara duñu téye. parce que c'est des jeunes et des femmes engagés. engagés à relever le défi. génne Sénégal ci guute gi nga xamante ni jëm na ci Macky Sall ñu lay alerter boo libéré wul Thierno d'ici peu de temps di nga taal dëkk bi te boo taalee dëkk bi doo ci mucc yow. di leen jégalu di remercier waat ñëpp ah. man la Koña Samb dëkk taaxi kaw ci zone nord nekk membre ci République des valeurs man damay mettre en garde président. dañ ni ko na bàyyi président Thierno mu ñibbi moo gën ci moom bu bañee taal dëkk bi man foofu laay waxee moom ndax mënuñu ni muy jàpp ay adversaire am di leen tëj di éliminer ñeneen ñi instauré fi parrainage ñu waxati muy jàpp ñiy marche di leen tëj loolu du yoon du dëgg du yoon li ñu war a wax lépp kenn mënu koo wax tey Macky Sall nanu may jàmm ñun loolu lan soxla ñun Thiès ak feneen ak feneen Thierno Alassane lanu tànn mooy sunu moo nu day moom la nu bëgg moom la nu gëm nanu may jàmm bàyyi ñu ñu dem ci élection ak jàmm ak salaam ku mën sa morom duma xanaa moom dafa ragal moom lan la l'intimidation ne passera pas tapet la ragala, la nanu may jàmm bàyyi suñu président te libéré ko nag ci bref délai foofu laay wasalaam. Euh, wax le président Macky Sall ñu bàyyi opposition bi droit la ñu réclamer ce fichier électoral parce que mënuloo dem élection à six mois des élections mënuloo yor fichier électoral dans la mesure où ñu dañu dugg ci terrain bi di dem def parrainage ñi ñi dem pour ñi parrainer leen wóoruñu ba xam ñi ngi ci fichier bi. kon ñun dañu jàpp ne ñun sénégalais d'abord dans un premier temps Macky mi ngi chanteloo parce que liggéey bi mu def ak effort bu ñuy fournir ci terrain bi ñoo ngi liggéey liggéey boo xam ne ëllëg sax mën nañu liggéey bi baax dañu soxla fichier électoral bi nga xamante moom la war a basé pour xam ñan ñoo ñu war a parrainer suñu leader opposition yi ci loolu lañ doon def marche tey Macky Sall na leen ci loo xamante ni ne da da ko tegul

te lii ñu gis nii ñun en tant que sénégalais am nañ jàng te ay nit la ñoo xam ne lan moo xew ci dëkk bi kon lii suñu toppee lii ba mu sës dañuy jàpp ne élection yi nar a am nii tey jii jaay doole la mun na am sax bu ñu eggee ci élection Macky dootul amati benn candidat bu muy jàkkaar ndax mun nit koo munoo taxaw si terrain nga da bëre ba pare munoo jàmmaarloo kenn ñëpp boo war a jàmmaarloo rek faagaagal nga ko teg ko ci wet ba nga xamante ni gisatoo kenn koo xeexal munoo dem ci guerre yoruloo arme ñun ñu war a jox arme bu ñuy xeexee arme bu a utiliser contre moom